sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak ak di ko ñaanal nag mboolem njabootu Seexul Xadim gépp. di ko ñaanal it. di ko ñaanal it. kilifa dëkk bi. dëkk bi. di xalifaab sëriñ Abdou di xalifaab sëriñ Abdou Ngom. di sëriñ Sidi. sëñ Omar. sëñ lay nuyu. noo la di la siyaare. di indi ay kàddu yu leeral. di indi ay kàddu yu leeral. loo xam ne lépp yaa ko moom. loo xam ne lépp yaa ko moom. ndax ñun ak Serigne Saliou. ndax ñun ak Serigne Saliou. da nga noo yilif. da nga noo yilif. Serigne di sunu xarit. Serigne Saliou di sunu xarit. bu nu jógee di ñëwit. bu di ñëwit. ci liggéey boo xam ne. di ñëw ci liggéey boo xam ne. lu ci waay def. lu ci waay def. yéen la ko defal. yéen la ko defal. ku mu indi it. ku indi it. yéen la ko indil. yéen la ko indil. ku mu àndal it. ku mu yéen la àndal. ndax Serigne Saliou. ndax Serigne Saliou. a ko taxaw. yéen ko taxaw. yéen a ko jàppale. yéen ko jàppale. ba lu mu man. ba lu mu man. ko. mu man ko. nu mel. nu mel. mu mel ko. mu mel ko. moog Cheikh Ahmad Fadel mii ci sama ginnaaw. bi ñu ñëw nag. bi ñu ñëw nag. ñu ànd ak ay kilifa yoo xam ne. ñu ànd ak ay kilifa yoo xam ne. ñëpp njabootu Serigne Touba lañ. ñëpp njabootu Cheikhul Khadim lañ. ku mel ni Serigne Abo Touré mii toog. Serigne Cheikh Touré di way juróom. waaye soxna Umu Mbàkke bintu Serigne Fallou. waaye soxna Umu Mbàkke bintu Cheikh Ahmad Fadal di way juróom. di way juróom bu jigéen. ñu ànd ak Serigne Moustapha Sylla. ñu mu ànd ak Serigne Moustapha lottu ji ñu woowee Teb di dongo di dongo ab kër gi. ak mboolem ñu nu àndal ñëpp. ak mboolem ñu nu àndal ñëpp. mën nañoo lim ñëpp. mën nañoo lim ñëpp nag. waaye comme ñëpp ngi teew dañoo teew fi sa wóor nañu ni. tey wóor nañu ni. dara ump la ci. dara ump ci. kon dañ doon ubbee rek. kon dañ doon ubbee rek. di la xamal ne. ne. ñii ànd ak Serigne Saliou dey. ñii ànd Serigne Saliou dey. Serigne Touba képp la ñu ànd moom. Serigne Touba képp la ñu ànd ak moom. ndax Serigne Saliou. ndax Serigne Saliou. kenn ku ne ci mbooloo mi. kenn ku ne ci mbooloo mi. soo wéeteeg moom. soo wéeteeg moom. da jàpp ne. da ngay jàpp ne. la teg. fi mu la teg. képp la. yow képp la fa teg. fekk booba. fekk booba. li mu donne ci fi mu jógee. li ci fi mu jógee. ñu jàngal ko ko. ñu jàngal ko ko. yar ko ko. yar ko ci. moo tax. moo tax. ku mu jëflanteel rek. képp ku mu jëflanteel rek. da ngay jàpp ne képp yaa da ngay jàpp ne yow képp yaa moom sëñ Saliou Ngom. kon kon loolee moo tax bi muy ñëw. mbooloo mi mu àndal ñëpp. mbooloo mi mu àndal ñëpp. kenn ku ne bàyyi yitteem. kenn ku ne bàyyi yitteem yor. bàyyi ab liggéeyam. bàyyi ab liggéeyam. bàyyi këram. bàyyi moom teew fii sa kanam. ànd ak moom teew fii ci sa kanam. ba keroog. ba keroog. yitteem di mat ci di mat ci jaam ñi. kon nag loolu la ko waral. ko waral. jikkoom ju rafet. jikkoom ju rafet. akuk taalibeem. akuk taalibeem. ak lu mu woon nit ñi. ak lu ba ñëpp jàppee ko loolu. ba ñëpp jàppee ko loolu. kon noonu la koy seereel. kon noonu lay loolu. ñii nga xam na ànd ak Serigne Saliou. ñii nga xam ne it ñoo ànd ak Ngom. muy kilifa yi. ñun taalibe yi. di ñun taalibe yi. kenn ku ci nekk daal. kenn ku ci nekk. na nga xam ne sëñ Saliou sant na la. na nga xam ne sëñ Saliou Ngom sant na la bu baax. xolam it sedd na ci yow. xolam it sedd na ci yow lool. wóor nañu ni de. ndax wóor nañu ni de. sëñ Abdou Salaam. Salaam. xolam sedd na ci ñun. xolam sedd Seydina Omar. xolam sedd na ci ñun. xolam sedd na ku seen xol sedd ci yow. li ngay wut. li ko am. kon nag loolu kon a sell seen xol lañ nag Serigne Saliou. kon nag Serigne Saliou. noo ngi lay santaat noo ngi lay suñu buntu ci bii barab. te doon buntu bu mat sëkk ci ñun. ci doxin ci doxin. ci waxin ci jëfin. loolu la rek. loolu ko seereel Seydina Omar. nañ dugg ci noppam. xam naa xam na lépp sax. ndax nag xam na lépp sax. waaye baamuwaat tamit. waaye baamoog njàmbat. du bari wax leeral rek la. du bari wax leeral ka ko ka ngay war a leeral la. kon sëñ Omar. kon sa cantuk bopp. bu bàyyi ko Serigne Saliou. bu bàyyi ko Serigne Saliou Ngom jëm ci yow. ak Serigne Fallou mi jëm si sa jëm ji. ndax yàlla dafa dogal. ndax yàlla daa dogal. diggante bi nu jaxasoo lool. diggante bi nu jaxasoo lool. te dara umpuñu ci nag. nga jaboote leen. nga jaboote leen. waaye nga jàpp leen. waaye nag nga jàpp leen. te jàppee leen ay rak. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. da nga koo jàppee ni sa jëmmi bopp ji. taxawu leen ci lépp. ci saayir ak ci baatin loolu nag nga xam ko baax ngom kon nag ñoo ngi lay ñaanal sun borom guddal fan wi wéral cër yi yaag sëriñ sayar ak maam Cerno ak mboolem umma bi bokk ak sëñ sëñ sëñ Abdou ñëpp bi nga bokk ak ñoom dañ ne woon rek nan yëkkati kàddu yi cant leeral la ne ñi ànd ak sëñ Saaliw ak posture bi ñu ànd moom ak nite gi mu ñoom ba lii tey koo def fi sa kanam defit yow rek la ko defal lu waxit yow rek la ko waxal waaye Touba geenu ne kenn ko xam di leen xeeb xam sëñ Saaliw rek bu leen rek am ci yéen cofeel waaye bu leen gisee ga yokku loolu nag defar ko Seexul Xadiim la. kon noo ngi lay ñaanal baax ngom yow itam di di yokku ci yow it nga ñaanal nu bi muy lim kilifa yi bi muy lim kilifa yi sëñ Ibrahima Gueye Mële sëñ ma Gueye Mële daa féete ca gannaaw daa ca ginnaaw waaye moom waaye moom itam digganteem ak ëtt bi ak Serigne Saliou ak Serigne Saliou ñoom ñi xam nañ lépp ñoom xam nañ lépp taxawaay yu am solo taxawaay yu am solo ak sëñ Badou Touré ak sëñ Badou Touré moom jóge ba seew bis bi rek tax koo jóg ak mboolem ku ñu àndal rek noo ngi siyaare bu baax euh, sëriñ bi Diouf sëñ Mansour Diouf sëñ Mansour Diouf mii moom it bokk ci njabootu sëñ Thierno Diouf Lambaay boroom joxe bu rëy ba. bokkaat gii kër. lu xew ci kër gi. lu xew ci kër gi. ñu bokk di daje. ñu bokk di fi daje. muy ku baax. muy ku baax. ku dund ak taalibe. ku dund ak taalibe. te amab cër lool. te amab cër lool. waaye woyof loolit nag. waaye woyof loolit nag. kon noo ngi koy ñaanal nag. di ko sàkku mu ñaanal ñu. di ko sàkku mu ñaanal ñu. ci barkeb sëñ Thierno. aajo yëpp na faju ndax sëñ Touba. def na ko sëñ Thierno. def na ko sëñ Thierno. sëñ Thierno yóbbaale wu ko. fii ko bàyyi kon nag yaag suñu Omar xam ngeen fi jamono toll xam ngeen xam ngeen yittee nit ñi tey am na fu ñuy tibbee tey it am na fu ñuy tibbee faj aajo yi seen loxo jote na fa te seen loxo na fa kon na ngeen fa tibb faj aajo yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ku tedd ki day alhamdulilahi rabbil alamin dellu nan santaat yàlla julliwaat Seydina Ahmad sangub sang ku tedd kii di jëmm jii di sëñ Xaadim Touré dama ko wax ne ko yéen ñaar seen diggante yaag sëñ Saalihu Ngom ajjuma ak ab gaaw la bis jaaru fa ànd ngeen jëm ngir jëmm sëñ Touba waaye ñu mel ni yéen ku ko topp taroy leen war naa mën a dem ndax seexi sëriñ Touba yi damaa wax ne dogalub sëriñ dogalub yàlla la bu wàcc sëriñ tubaa mu joxe ko ci jaami yàlla yi waaye yéen ñi de doxin ngeen di doxee. su leen seex yëpp toppandoo liggéeyub sëriñ Touba bi dina feeñ ndax joxe ngeenub taalu bee neex a roy lool des gan ci biir ba noppi woyof toy ba noppi kenn ku ànd ak yéen ku mën a doon ku ne du ngeen ko wan seen bopp ay kilifaam rek ngeen di fone te it diggante sëñ Abdou Salaam sëñ Aliou Touré ay seexam bu ñu àndee sëñ Touba ñaagal leen ñooñu ñaar di wone sëñ di wane ñooñu ñaar ñi ñi ñu wane di lenn ci waa sëriñ bi kon rafet na jaadu na. ku nekk Touba di yëngu ca la nga yëngu mu sax ca sa maam te da du du réer borom a koy wor kon yéen ginnaaw waru leen nag seen maam ya nu ànd ngir jëmmi sëñ Touba jëg Cheikh Ibrahima Fall ànd ngir yàlla yonent bi jëmmi sëñ Touba te ngeen di wonewul leen lan lu sëñ Touba kon ànd ak yéen dem ci sawar may wax ne bureau ba ñu demande rawatina bureau ba nga xam ne ku fa demande am la ngay demande noonu nag ñëw nañ tey ci dëkk boo xam ne jëmm ji yéem a fi di sëñ Xaadim Touré ndax moom moo leen jëmm ju tedd ji di bis boo xam ne ñoom ñoo ko fabriqué ci sama kër defal ma ko te damay wax ne ko fi gis muy ànd ak jëmm te jëm ja nga àndal ngeen dox ay fan jëmm jooju wëlu la boppam dara ci sëñ Tuubaa roccikul waaye ñi malit yi tiitalu leen malit yi yàqut seenub cër yàqut seen deret xaalis amut deret namp néew du jaam dos gor gor soo ko àndee du ngeen sori waaye seen deret maam yi ñu yor ak liggéeyam sëñ Tuubaa bi nga xam ne daa wàcc ci seen jëm ji ñu di ko doxee man na maa waat ci baaxub sëñ Tuubaa moom la leen mbooloo ñëpp toppee kon yàlla na sax yàlla na yàgg ci barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra kilifa nag du wax ba pare ab toolu bi dolli waaye ñambaas damaa dégg ñu ne yàqut benn nëb sër moo taxaat ma doon ci def loolu rek asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu. Euh, tey jii fa la ñu dëkk ci tubaa dëkk fa Cheikh Saliou ak sëñ Fallou ñan fa dëkkal ñëpp ñi mën a teew ñëpp ñëw nañu ñu mënut a teew tamit seen xool a ngi ñëw seen xool teew na ñoo ngi seereel fii ci kanam sëñ Omar ni sëñ Fallou dafa neex a àndal. mook sëñ Saaliwu ñoo nekk foofa ca koñ ba la nga xamante ni moom lañ moom la ñuy def ci ñun di ko ji ci suñu njaboot ñun mun ñu leen koo fay te liggéey bii ñuy liggéey muy daayira bi di liggéeyal sëñ ñoo ñu ci man fopp lu mu mën di doon ci wàllu financement ci wàllu disponibilité ak lu mu doon ñoo na ca man fopp ba pare nekk suñu sëriñ teg ci kon dan loolu dan la koy seereel fii ci sa kanam yow mi seen kilifa ak ci sa waajur sa xarit yi nekk fii yëpp ak sa kilifa yi nekk fii yëpp ñu leen koy seere ni ñii moom ñun munu leen a fay da dañu ñaan rek sans borom yàggal leen fi te wéral leen te lii nga xamante ne ci la ñuy dox ñun loolu lan soxla ndax ñun bëgguñu ko woon dara dul sëñ Tuubaa ñun bëgguñu lu dul nu ñuy def ba jaamu yàlla nu def ba sell nu def ba dem àjjana ñun loolu dong la ñuy wër ñi nga xamante ne ñoom la àndal ñëpp ci lool la ñu nekk ak ñoom guddeeg bëccëg te ñii loolu lan ñuy woon yor suñuy doom di leen jàngal laaj ñu dara loolu man jànguma alxuraan français cent jàng 1975 laa dugg français laa jàng yeewu naa ci waaye eh, samay doom fasuma yéene kenn xam ci ab a ñoom ñëpp ñoom laa ko jox mi ngi nii ñu nii ndax li ma li ma li ma rawoon loolu laa bëgg a rattrapé ci sama njaboot ba tax na képp koo xam dugal nga benn baat alxuraan ci sa ci sa doom kooku mënoo koo fay moo tax ñun ñi kii lu mu na man di woo fu nu man di woo dinañ dinañ dem te den ko wuyu te den te def suñu kam laa kàttan den ce def lu man lépp ak lu mënul yëpp loolu dama la koy seeral ci sa kanamu xarit yi ak sa kanamu waajur yi ci dëkk bi te ñaanal ñu rek ñu am aajo ju faj aajo ju aajo aajo ju faju ak mbiru jub di ñaan ngeen ñaananu képp koo xam teew nañ ca bokk ci daayira bi mu am saxaadatu daara ni ñu ànd koog moom te am ci ngërëmal Serigne Touba di siyaare kilifa kër gi sëriñ Omar sëriñ Omar Ngom ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di siyaar rakkam yu baax yi bu Mamadou Fadal Serigne Saliou waaw ah, dañ ne boo dugg ci bu boo dugg ci néeg dangay jaar ci buntu ba ñun ginnaaw bu ñu xamee sëñ sëñ Omar ak sëñ Sayar ak sëñ sëñ sëñ Maam Thierno ci sëñ Saliou jaare ah, dañuy xamale nag boo gisee ñu ñu ñu ñu sol déguisement bi mooy déguisement daayira kennal seriñ Touba 18 safar bu Touba Thiawène Diamaguène moom mooy déguisement bi ñu yor. diggisement orange blanc bi mooy diggisement daayira soppee sëriñ Saliou ñun ñëpp ci daayira yooyu lañ bokk waaye dañu wane wane wane yaatal ak sëñ Saliou rek moo demee noonu ndax boo xoolee mbirum sëriñ Touba sëriñ Touba dafa yaa te moom tànk kanam la am amul tànk ginnaaw ñaari daayira yëpp moo ko sos loolu nag dañ koy ñaanal mu gën fee yàggul lool lool lool lool lool te wér ah sëñ Omar ñun suñuy kàddu mooy ñaanalal ñu sëñ Saliou ak sëñ Fallou rek ndax boo leen ñaanalee rek lépp dina baax ndax ba la ñaanalee dinañu ñaanal te bu ñu ñaanalee lépp dina baax. alaa wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñaanalee Cheikh Mouhamadoul taxa mu yàgg fi loolu te wér borom ku dem ma dem ku demul ma dem yal na ko yàlla may fan wu gudd ndax li Sëñ gis nañ ko ci moom wa sunnatuhu in jaa rabbi ubayyinu loola ab goppam di nekk yal na ko yàlla may fan wu gudd. bu baax nag ci kàddu yi ñu yëkkatee ci sunu kanamu kilifa gi waaye la ibnu Durayd waxoon rek lakinnaha nafsatu masdurin isa jaza luqaama min nawayha xamma te kàddu gi may waxi nag kàddu mboolem yoonu murit laay wax ne moom la waaye nag tey léegi bi ñu ñëw sëñ Thierno Fall mii sëñ Aliou Diouf Lambaye daf noo yónni te it am na suñuy kilifa yoo xam ne dinañ fi ëgsi ma ànd ak sëñ Mansour mii moom sëñ Thierno Diouf Lambaye ak sëriñ Ousmane ak sëñ Abdoulaye nu koy séentu moom sëñ Thierno Diouf Lambaye ak sëriñ Dambilal ñëpp nag ñëw fii ci bis boo xam ne sotti ci ak def ci la rek mu fekk fekk sang yu baax yi nga xam ne seeni maam ak sunuy maam ñoo laxasu woon nekk ca sëñ Tuubaa ndax it eh, sëñ Mor Seck rijaal ku ci ku ci nekk xam na ko te kii di ab sëtam di sëñ di te sëñ Mor sekk am na ci sëñ tubaa loo xam ne nii na ku ko am une semaine boo xam ne rek moo nekk ak sëñ loolu ku ci nekk histoire retenir na ko ku ne xam na ko kon nag ñu ngi leen di siyaare di siyaare it sang yi nga xam ne it diiwaan la bu ñu nee diiwaan it lu bari la ñuy fàttali ndax sëñ Tuba en 1895 la embarqué dem mu métti lool defut kenn dara toog doon jàngale ci Mbàkke Baari nu tas ay këram mu bind wax la yonente bi waxoon man na zannani xayral xadimal Mustafa fa na ni innani ardimahu bi Mustafa ardimahu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna booba la jàmm mujj am te loola liñ ci bëgg wax mooy ba mu amee siñ diiwaan si la ak siñ Aliou Diouf Lambaye dañ leen a ci borom daarul moxti muy jëmm ji kon maamam ak sun maamam ñoo nekkoon ci borom daarul moxti te loolu pas-pas la woon boo ko dee xool juróom ay ceern yu bari sëriñ diiwaan si la tudde na ko si maam maam ceern siñ Aliou Diouf Lambaye juróom ñaari maam ceern mu tudde ko loolu pas-pas la lañ ciy bëgg a leeral sang yi nu nekkalit muy siñ Omar mii rek suñ ko waxee dugal nañ ci lépp danoo bokk ci sëñ Tuubaa waaye bokkaat ci deret waaye nag am lu ëpp loo xam ne mooy lépp nag muy jikko ndax yonent bi ñu ngi ko cité tagg ko ci jikko mu am jikko ju rafet yoo xam ne mbooleem kuy jaxasoog moom xam nga ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo tagg ci jikko wa innaka la ala xuluqin azim moo tax Sëñ Tuubaa man talaba al wusula lil jalil falyatasim bi sunnati rasul bi an yulasima mutihan la yamil fi zahirin wa batinin an sabil kon jikko ju rafet jooju mu am ñu ngi koy ñaan di ko siyaare ci bis bu tedd bii nga xam ne bisu ñaan la lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla nangu te ñaari saa bu ko nit amee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne xaslataani laa yajtamiaani fil mu'min al buxlu wa suul xulq te loolu gisuñu ko ci moom kon ñi ngi lay siyaar ñi ngi lay dalal di siyaar it sang yu baax yi rakkam yii ndax it li Sëñ Tuubaa wax rek moo am solo nangeen ngeen taqoog nit ñi nga xam ne di ngeen man di rafetal seen jukk wala si mu man laa yasaalu xaabida li rabbihi ilaa hudaaw xaa'ida kon loolu daanaka suñ ci waxee waxal nañ ci ñëpp waxal nañ ko mboolem murid ji adduna nag yëngu yi dafa bari lool lii rakkam yu baax yi def lu am solo la ndax it iñaan baaxut sëñ Tuubaa dafay doon ko ay xiiroo ak ŋaayoo wàccal xulubana ala tawaddudi bi la tanasin wala taasudin te lii ngeen def da ngeen wone ay leçon yu bari kon nag yéen nga xooloon dundam gi fu mas a gise mu am liberté gisuñu ko jëf ju ñaaw ju ne def nañ ko ko wax ju ñaaw ju ne def nañ ko mu bind wax ne mu bind wax lu leer ci Gabon ñu ci bari xaj na am na ñu fa jaar te ban koy yóbbu Gabon 1895 liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek a taxoon mu wéet fa lool mu mitti fa lool jëf ju ne nu def ko ko ba Duuduma Mbay daan jël sàngara di ko xëpp daan jël am poon di ko def waaye nag muy muñ di bind ci xalimaam di wax ne muhammadin wasilati wa junnati anil aadi wal asa wa jannati kon pas-pas boobu mu amee nañ ci gën a góorgóorlu bu baax xam ne jamono jii nu toll nag adduna yëngu na lool te islam bi nga xamee ne yëngu na mu yaakaar wallu ci sëñ Tuubaa la ko yaakaare kon jamono jii nag njabootu sëñ Tuubaa war nañu sensé waat comportement yi jamono jii nag kum neex nga doon murit saadix ñay dox di bàkku ak di yëngu bari na waaye jëmm yu mel ni suñ leen amee nan souligner leen am di waxtaani seen jikko xam ne si lan mën a jariñoo dox dox yi nag wuute na boo xoolee ci alquran ay jàngkat ñoo fi ne innahu min ibadina moxlasina ca yonente yàlla yusuf masdar bi ca kaw lan ko teg boo bokkut ak wa maa umiru ila li yabdullaha moxlisina lahu diin kon nag nan xam ne gars yi Sëriñ Tuubaa yi kenn du ñoom nan ko fonk ñiy wax ne àgg nañ ca aras wala dem nañ fee mënunoo romb góor yàlla yi wa xiila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin xiimatan koofin ga sëñ Tuubaa waxoon nan ci doyloo nan gën a góorgóorlu xam jëmm yu baax yi nu am nu xam ne fii bu ñaan la bara bu seet la te suñ borom moo wax ne adduuni astajib lakum kon nag li fi waay andi yal na yàlla nangu ñaan yi te Ibnul Xayyim moo bind wax ne diine ñi ngi ko tabax ci ñaar mabni yu diinu alal qaidatayni a zikru wa sukru sikr gi mooy lan mooy tudd yàlla lan fii def moom ngeen ubbee jataay bi laa ilaha illallah te Allah dikk na ci alquran moo tax Sëñ Tuubaa ne am moo tax it alquran wax ne wala sikrullahi akbaru moo tax Seex Ibra Faal kàddu googu la làmboo woon wax ne tasxaru layaali maa baslil maali wa sadaqati wa silatu rahmi wa xidmatu waliyallah loolu mooy kàddu yi nga xam ne doon nañ ko feeñal jataa bi dafa xaw a xat lool te itte tey bari na ñu sant fay dañuy bëgg añ wala leneen ak leneen kàddu gi na wax nag feeñal yéene la rek kër gii mooy kër Sëñ Aliou Diouf Lambaye kër Sëñ Aliou Diouf Lambaye mooy kër Sëñ Abdou Salaam Ngom lépp benn la sotti ci ak defti la xam naa dina am ñu ko leeral lii ñuy wax nag mooy la bindkat ba waxoon la tamtaana ilmin min xayri tajribatin fa rubba fa rubbama xaama maqaama insaanu fiyaat addaalu wasaalu fi taswiri wahidatin addaalu arbaatun wasaalu sabumia wasalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu Serigne Mbacke moom sëñ Abdourahmane ñu di ko wax sëñ Mbacke Dabasaar muy sant bu baax a baax ci teewaay bi ak kàddu yi ñu fi yëkkati leeral ko ñoo xam ne ñi xëy na xamuñu ni deme moo tax nga yëkkati kàddu yooyu leeral ko waaye moom yow xam nga moom xam na sëñ bi ne xolom sedd na bu baax a baax ndax njëlbeenu ñëw gi rek mooy teg tànkam fii ba xam barab bi xam njaboot gi xam niñ tooge loolu moo moo mooy bénéfice bi njëkk ci ñëw gi ndax jaxasoo gi yàgg na waaye nag ñëw gi mi ngi door am tey nee na xolam sedd na ci bu baax mu ngi ñaanit sunu boroom jàppale ko ba dootu fi gëj mu di fi faral di ñëw ndax euh, ni nga ko waxee rek ni la amee ndax ku am sa njaboot fi barab ñu nekk fa nekkal la fa si lépp nekkal la fa. Euh, war nga fay def léeg-léeg nga ñëw fa xam naa jot a dégg ni nga ko waxee ndax tey jii mbir mi ñor ko rek moo tax mu ñëw waaye amoon na téq amoon na gàllankoor bu ko mënoon téye ñëw waaye nag dafa am noo xam ne nii dafa am noo xam ne nii euh, loo xam ne li bu la fekkee ci mbir ak nu mbir mu mën a demee rek waaw nga bàyyi ko. loolu moo waral euh, jotaay bi nii mu amee nii. ndax tey ji moom amoon na gàllankoor boo xam ne bii waroon naa mën a tax du ñëw waaye nag nit danga am koo xam ne sa sa digg ak moom dana deme noo xam ne nii dana la jaral bàyyi lu bari loolu rek moo waral jotaay bii ne mi ngi sant bu baax a baax a baax di sant njaboot gi ñëpp ñëpp ñëpp di leen ñaanal di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo am dimbal yàlla na nu dimbali di ñaan lii yàlla nañ ko yàgg a def yàlla na yàlla na ko fi yàgg fekk mu di ko fekke si itam xëy na bii mooy yoon wu njëkk wi waaye fas na yéene saa su mel ni ñëwatee mu ñëw teew si fii wala bu fekkente ne teew si ngeen xam ne am na ngàntul mat ngànt waaw ñu ngi sant ñépp di gërëm ñëpp di ñaanal sëñ bi sunu borom yàlla na guddalu fanam ànd ak wér di ñaan it li nga xam moom la simb simbal ko maamam yu baaxee simbal ko woy juróom yu baax ya sunu borom may ko ba mu àggale ko na mu ko bëggee te nu ànd kook moom ndax moom dara ñuru ko lu lëggeel sëñ Touba rek lu mu am sëñ Touba rek la koy la koy jox. ñii ñii ñii mu ànd ñii itam loolu rek moo ko booleeg ñoom loolu rek moo ko booleeg ñoom xam mu doxinam xam ni muy doxee moo ko booleeg ñoom ku ko xamuti dégg nga ko sëñ Mbàkke dafa sar moom bu ñu ko waxee ku ko dégg xam ne taalibe rek a ko ñor ak taalibe rek ko ñor. li mu doon doon boroom daal Daaru Muxti teel bi nga gën a ñor moom lay doxee moom lay waxe moom lay jëfe kon nag ñu ngi ñaan suñu boroom di ñaan mboolem ñi nga xam ne ñi teew si nañu ci suñu borom aar leen dimbali leen leen saayir ak baatin wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Muntaxa Mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér. di ñaan lool nag Serigne Abbas mu yàgg fi lool te wér. ak Serigne Moustapha Absa Mbacké ak mbooleem njabootug Cheikh Ahmadou bu baax Seydina Omar mi xalifaab sëñ Abdou Salaam mu yàgg fi te ànd ak ak wér lool ak mbooleem njabootug sëñ Abdou Salaam gi bi ne xam naa kàddu yi ñuy yëkkati nee du mën a gudd siyaar bi ginnaaw tàkkusaan lañ koy amal. ndax nee te a mboolem taalib yi ñëpp a ngi bëgg a dem ca ba. te mboolem taalib yi ñëpp a ngi a dem ca liggéey ba. kon tey kilifa yi ñu fi fekk. kon kilifa yi ñu fi fekk. jataay bi xaw naa yàgg ci ñoom. jataay bi xaw naa yàgg ci ñoom. kaddu yi fi jaar la. kaddu yu cant la. ak kaddu yu ngërëm. ak kaddu yu ngërëm. ñun nag suñu kaddu teg. ñun nag suñu kaddu yi ñu ciy teg. jëmut ci kenn. jëmut ci kenn. lu Seydina Omar mii toog ak mboolem kilifa yu tedd yi. ak mboolem kilifa yu tedd fi toog. ginnaaw bi ñu santee ñi ñu àndal. ginnaaw bi ñu santee ñi ñu àndal. nga xam ne at mu jot. nga xam ne at mu jot. ñëpp ñu déplacé leen. ñëpp ñu déplacé leen. kenn ku ne bàyyi sab liggéey. kenn ku ne bàyyi sab liggéey. uuf sa njaboot. uuf sa njaboot. ñoo ànd ñoom ñëpp ñoo ànd man ñëw fii. sàkku ak ñaan képp te di fi sàkku ak ñaan képp. du fi yaakaar képp. du fi yaakaar képp. du fi yaakaar Sëñ Tuubaa kese. du fi yaakaar Sëñ Tuubaa kese. ndax buñ fi yaakaarutoon Sëñ Tuubaa. ndax buñ fi yaakaarutoon kon ñu sant ñooñu. kon di ñaan sëriñ bi. mu ñaanal leen. mu ñaanal am. yaakaar ba at mu jot. ba at mu ñu bàyyi seen i yitte. ñu bàyyi seen i yitte. ñëw fii. ñëw fii. yàlla na yàlla bu mu tas yaakaar. kon nag kon nag. li may seedaloo mbooloo mi. li muy seedaloo mbooloo mi. ginnaaw ma sante kilifa yi ma àndal. ginnaaw bi ma sante kilifa yi ma àndal. Serigne Khadim jaar na ci. Serigne Khadim jaar na ci. maa ngi leen di sant bu wér. ñu ngi leen di sant bu wér. ñenn ñi sax dañoo jiitu si. ñenn ñi dañoo jiitu si. waaye waaye waaye waaye waaye ginnaaw loolu. waaye ginnaaw loolu. may xamal mboolem uh, ñi fi toog. may xamal mboolem ñi fi toog. ne sëriñ Omar mii toog. ne sëriñ Omar mii toog. ak mboolem suñ kilifa yi ñu fi fekk. ak mboolem suñ kilifa yi ñu fi fekk. xooluñ ci ñoom. xooluñ ci ñoom. baatub suñuy mag lañu. baatub suñuy mag lañu. ci ñoo bokk sëriñ Abdou Salaam. ñoo bokk sëriñ Abdou Salaam. bët bi ñuy xool ci ñoom. bët bi ñuy xool ci ñoom. mooy bëtub sëriñ. mooy bëtub sëriñ. akub taalibeem akub taalibeem. ndax sëriñ Touba jii ñu nekk. ndax sëriñ Touba jii ñu nekk. lenn du fi maye dara. lenn du fi maye dara. lu dul ak taalibe. kon nag bokk gin bokk. kon nag bokk gin bokk. jaay nañ leen ko. jaay nañ leen ko. te muy dëgg ci sunu xol. dëgg ci xol. jënd ko ak taalibe. jënd ko ak taalibe. ginnaaw bi ñu leen ko jaayee te itam. ginnaaw bi ñu leen ko jaayee ba pare it. njëg googee itam. joxaat nañ leen ko addiyee sëriñ Touba. bëgguñu seen jëmm yi dara amul lenn lu ñuy sàkku. amul lenn lu ñuy sàkku. amul jenn daraja ju ñuy sàkku. la ngeen xam ne ànd ngeen ko lu la ngeen xam ne ànd ngeen koog ñun lépp luñ dugg nag te xam ne ànd ngeen teeg ñun te ci mbindaaf ci kaw suuf lépp luñ dugg nag lépp luñ dugg nag bu ci ñëpp àndoon ak bu ñëpp àndoon xam ne du jëm fenn kon nag ñu ngi sant yàlla bu wér kon nag ñu ngi sant yàlla bu wér dañ koy seedaloo dañ koy seedaloo loolu it dañ koy seedaloo suñu mbokk yi fi toog ndax waa kër Serigne Aliou Diouf Lambaye kër Seydina Omar génn kër la wax na ko sëñ Bàcc wax na ko ndax soxna Mariama Diouf mi waajur ndax soxna Mariama Diouf mi waajur Abdou Salaam sëñ Abdou Salaam ku nekk xam na ne ku nekk xam na Lambaay la te keroog bi Seydina Omar jógee sëñ ci Seexul Xadim mu mu boole koog borom Daaru Muxti mu ñëw fii ci Bawal kum gis ngay dem di mooy yàlla wala ngay def lu neexul yàlla wa ma sayibna ila bima alimna maanaam ñi nekk fii ñëpp maanaam ñi nekk fii ñëpp seede nañ loolu la waral seede ji itam la waral seede ji itam lu wax ji bëree bañ boole koog borom daaru moxti bañ boole koog borom daaru moxti maam Cerno daf ko woolu ba ñëw maam Cerno da koo woolu ba ñëw mu jël ab ka mu jël ab jaaro. mu jël ab jaaro. akisa. def ko ci kaas. def ab tàngaay di dëpp ci kawam. ñëw laaj ko li fi nekk. mu ne ko su ma ci amee ndigal. mu ne ko su ci amee ndigal. mu ne ko sa jaaro bi sell bi képp laa ci biir. leneen na ko ko wéttal. muy ab kaas. maam Cerno ne ko ndokk liñ doon wax lépp yaa koy wax. waaye xamoo ne yàlla moo la gën a xam lépp. teewul te teewul mu noppi. te teewul mu noppi. kon dangay noppi. kon dangay noppi. mu jàll dem di siyaari sëñ Tuubaa. mu jàll di siyaari sëñ Tuubaa. sëñ law kaana kalaamun fiddatu. law kaana sukkootu saxaaba. maanaam wax bu nekkee xaalis. noppi wurus kon. loolu bu loolu ca jógee. mu jaadi continuer. ak wax daa di diirub jamonoom ba ni muy génn àdduna ba ni muy génn àdduna waxatu bi keroog sëñ Aliou Diouf Lambaay sëñ Aliou ne ko Seydina Amar ne ko sa jigéen jii di Mariama Diouf laa bëggoon mu ñëw ci kër gi sëñ Aliou bindiwaat suuf Serigne Aliou Bindaat. Serigne Aliou Bindaat ci suuf. ba ne ko sama jigéen bii di Mariama. ba ne ko sama jigéen bii di Mariama Diouf. bu doon bu doon mbubb mu la. bu la. dama koy summi. dama koy summi. ko sa loxo. ko ci sa loxo. nga xam ne mag ñi. noon la ñu ànde woon. noonu la ñu ànde woon. bu doon sama jigéen bii la ko wax. sama jigéen bii la ko wax. bu doon mbubb mu bu doon mu ma sol. bu doon mbubb mu sol. dama ko summi jox la dama ko summi jox la ko. bu doon mbubb mi ma la. dama koy wékki dama koy wékki teg ko ci sab loxo. Sëriñ Aliou bindaat ci suuf. Sëriñ Aliou bindaat ci suuf. daan ne ko. daan ne ko. may ma ñetti fan. may ma ñetti fan. nga ñëwaat. mu ne ko sa jigéen bii di Mariama Diouf. mu ne ko sa jigéen bii di Mariama Diouf. benn doom bu góor képp lay am ci kaw. benn bu doom bu góor képp lay am ci kaw suuf. te Abdou Salam Ibnu Jaafar lay tudd. te Abdou Salam Ibnu Jaafar lay tudd. keroog bi ko sëñ Aliou joxee soxna Mariama keroog bi ko fii soxna Mariama ñëw fii nekk moom nekk ak moom dogal mu dem ba ba doon jigéen mu dem jigéen mu daal di wax ne mu daal di wax ne sama doom sama sama soxna Mariama mi soxna Mariama mi ki yor soxna Mariama mi ki la góor la bu juddoo ko tuddee Abdou Salam Ibnu Jaafar nañ Ibnu Sa Abdou Salam Ibnu Jaafar mag ñi nekk fi di wax mag ñi nekk fi di wax naa ku ñëwagul ñu ñu joxe turam mu ne ko koo xam ne aw turam lay gën a waale adduna neex naa layal sëñ Abdou Salaam ku xam na ne mag ñu fekkan gane addunaam ñëpp wax nañ ne moog sëñ Abdou Khoudous Ndiaye mais seeni tur lañ gën a waale adduna loolu nag yàlla suñu borom dogal. yàlla suñu borom dogal. mu mu mu mu seqoon ak Serigne Aliou loolu. mu seqoon ak Serigne Aliou loolu. njabootu bu ñëwee ci gii kër. seen këru bopp la seen këru bopp la. ak mboolem njaboot gi. li ñu wax ci Serigne Omar képp la ñu wax ci yéen. njabootu Serigne ma paate ak Seydina Omar. ñoo bokkoon borom Daaru Muxti. Serigne Kara màggalug Makka Baas gi jàll. sëñ Moustapha mi ak Habib di waajur sëñ Moustapha mi toog lu ko ciy nettali lu bëree bëri kon bi na jotaay bi yàgg na ñooy seedaloo mbooloo mi daal ko kilifa yi toog fu nekk mën nañ faa yóbbu siyaar fu nekk mën nañ faa dem waaye ñu doxale suñu digganteeg sëñ Touba ñu doxale suñu ñoom ñii kon ñu ko seedal ñëpp jërë ngeen